people la. Miss <laughs> Miss ils ont organisé concours de beauté euh, euh, ci prison. au Kenya. Mm. c'est grave ça. c'est extraordinaire qu'est-ce qui s'est passé. <laughs> Pape Cheikh yaa am nañu photo yi élection ah, Miss bi donc euh, Kenya ñoom. élection boobu toujours <laughs> Ndiaye compte plein. yow ku tàngoor xolam waaye dañ ko ko dindil. sama xulóo bi ma war a xulóo waa Facebook bu ma paree laa koy def. Bijou Ndiaye compte plaire. nga dégg ko. maam di donc ils ont organisé ce concours dans une prison. alors concours bi Langata la ñu ko tuddee. catastrophe Bijou Ndiaye compte plaire. dans une prison. dans une prison. parce que seen prison principale bi nee nañu ko dafa bëri ay xale yu jigéen yu rafet donc ñoom ñu am idée choisir ban xale bu jigéen moo ci gën a rafet photo yee ngi ni boo gisee euh, pénitencier yi di selfie ak ñoom elle est magnifique seulement man je veux savoir quel message ils veulent faire passer parce que par exemple ci ñu jël Miss moom dafa poignardé 24 fois euh, kii wam son amant amant donc si tu prends une personne comme ça. parce que indi ko ci prison mu war a payer sa dette envers la société ngeen def élection Miss di def ay fête c'est vrai que prison. Euh, du da nga fa dugg rek euh, sa vie war na jeex. dogguma la foofu ma je pense que même fii Sénégal dañuy jéem jël jëlee jéem leen jàngalaat àddina. je pense waaw boole leen am na am nañ ay activités yu am foofu. Mhm. ils organisent yoo xam ne dañ leen di jàngal liggéey ay ñëw. des choses comme ça mais euh, bu fekkente ne yaa ngi élection bis man damay am impression que. doo retenir leçon bi daal ndax ci biir day neex authenticité je sais pas ba xam boo génnee après li nga tu vas te dire comme foofu woon na euh, du ma duma defaat li ma defoon pour duggaat c'est c'est ambigu daal doo xam donc da ngay wax ni war nañ ko def pour wan leen ne que voilà dugg nga prison mais ça veut pas dire que ta vie s'arrête et ngay continuer dund ci société bi nga bokk ba léegi dans notre côté tu te demandes est-ce que suñ ko defee ñoom dinañ retenir leçon bi tax ñu duggoon. mais insolite moom peine bi ñaata la. Euh, j'ai pas vérifié bi mais en tout cas. Euh, mais xoolal pénitencier yi tamit ku leen bàyyi ñuy sel non xëy na pour pour neexal seen xol tuuti c'est ça comme ay activités yi ñuy defar souvent par exemple waaw bañ a bañ a frustré waaw euh, jigéen yi nekk yi nekk ci prison yi fii Sénégal je sais que am na ñu bëri ñu leen di jàppale par exemple Mami Diop day dem di leen jàppale di leen organiser ay conférences c'est ça di leen ñawal ñawal leen ay leen ñawal juste pour dire que prison aussi c'est une autre vie hein prison c'est une autre société dans une c'est une société dans une société c'est juste la société des reclus des mis à part des prisonniers prisonnier. kii ne pas ba nga xam ne ne. ndeysaan day tax ñu fàtte seen dama ci bëggoon dolli non non non waxuma ak moom dama ci bëggoon dolli dañuy gërëm euh, parce que groupe Futur Média dañu nous sommes euh, yu bees dañu am bâton de selfie léegi donc je voulais remercier féliciter ñi ñu financé pour ñu am bâton de selfie il nous fatigue avec son bâton là <laughs> franchement donc Kenya mise prison et je sais qu'on en parlera dans le journal parce que d'habitude télévision yi bu leen doté matériaux yu bees comme RTS dañu koy wone ci journalu 20h bi donc ci journalu bi di ngeen gis bâton de <laughs> digital euh, yore euh, pour euh, woon leen coulisse yu yeewu leen <laughs> Japon aussi amoon na concours beauté <laughs> oh, Pape nag sa sa ndoroon yaa ngi dem nag. Pape bisu jaay compte plein yaa ngi dem nag Pape. <laughs> Pape est-ce que duñ la mayaat congé. j'en ai franchement besoin. waaw waaw yow da nga sonn bisu jaay compte plein oui Bijou waxa rek bàyyi jàmm waxa rek bàyyi non mais c'est grave c'est grave muus muus muus ou lan mooy lan mooy matt nit bi li ko matt am na lu ñu koy waxee am na lu ñu koy waxee ah, li leen matt li leen matt daaw bi xam naa ko muusu daaw bi ujaanu daaw bi déedéet eh, xoola xam nga yow lan la yow moom. <laughs> léegi sponsor mattaat na la bukki bi. wala bukki bi leen mattoon bi mattoon seen miis bi daaw. Mhm. moo mattaat seen miis bi ren. au au Japon waaw waaw bukki da ngay naan sama bukki bukki bi moo ma mattaat mooy c'est la même chose qui m'arrive ah ok voilà donc euh, ci seen concours ci seen concours de beauté bi Miss. Euh, élection Miss Japon Miss Japon. bukki bu daaw bi moo leen mattaat ok <laughs> donc année dernière dafa amoon benn euh, métis boo xamante ne moom moo gagné woon élection Miss Japon donc Ariana Miyamoto la tuddoon moom métis. <laughs> noir ak japonais la. ñu koy woowee xaafu mooy xaaju japonais. ñoom ñëpp ñu jàpp ko xas ko saaga ko parce que ñoom nee nañ ku dul japonaise waroo gagné élection bi année bi seen bukki bi màttaat na leen comme ni nga koy waxee mun nañoo xool photo bi euh, cette année ki ko gagné mi ngi tudd euh, Priyanka Yoshikawa. Mhm. donc moom euh, métis la mais métisu euh, indienne ak japonaise. Euh, japonais yi tamit jàppaat ko di ko xasaat encore. parce que nee nañ actuellement ñoom ils ont l'impression que seen élection de Miss bi ça sert plus à rien. Mm. parce qu'on ne choisit plus de vraies japonaises comme si yow boo nekkee métis bokkuloo ci dëkk bi moom mi ngi nii ñu koy wane alimage l'image na depuis bi mu bi mu juddoo Japon la juddoo dem na États-Unis dem na yeneen dëkk mais. nee na bi mu bi mu revenir au Japon pour dund fa. bañ a jege comme si. Ah. tout le temps dañ ko doon poser ay question di ko laaj ba xam elle est vraiment pure. Ah. parce que pour ñoom pour nga pur faut que tu sois à japonais et que métissage bi c'est pas assez développé que ça il y a que de naissance yoo xamante ne c'est des métis et elle dit qu'elle a été inspirée par la Miss de l'année dernière mm-hmm. loolu moo tax elle s'est dit c'est possible je vais me présenter elle s'est présentée elle a gagné et elle dit que peu importe saaga bu ñu ko munti saaga tamit elle va se battre pour montrer aux autres métis que c'est que métis nga yooyu la gën métis kay résumé na lépp parce que parce que monde métissage yi daf fiy gën a développé mais ñoom ba léegi ils sont assez conservateurs mm. naissance yi ça concerne que de métis sur toute cette population. te métis en fait. métis yi dafa rafet même quand l'un des parents est moche. waaw comme man nit ki xale biy judd moom dafay rafet. par exemple sa doom gis na ni mu rafetee waaw gis na ni mu yaayam moom. waaw ah, ñaaw ba dee jur doom bu rafet. ana sa xarit waaye casting papa ji la <laughs> arrête arrête casting bi ci papa ji donc moom mooy Miss moom mooy Miss Miss Japon mm. deux mille euh, deux je pense à. on croise les doigts pour que deux mille dix sept mu am beneen métier. je sais pas pourquoi mais je M. ouais pourquoi je sais pas oui. parce que blague bi fenn judd foofu après ñu bëgg la génne ne bokkuloo fi ça fait toujours mal ça fait toujours ah. mal d'autant plus que yow boo juddooyee fenn dafay am benn sentiment d'appartenance à ce pays booy am mm-hmm. donc bu fekkente ne reconnaître luñ la ko rek day metti ci yow voilà Chris Brown qu'est-ce qu'il a encore fait Chris Brown dafa demoon prison Pape Cheikh parce que dafa jàpp benn xale bu jigéen di ko menacer ak arme ba ñu jàpp ko yóbbu ko prison tëj ko mu fay caution bu mu bëri génn prison li ma ci gën a jaaxal dafa génn lendemain bi mu génnee woy boo xamante ne bu doon yow naka ngay def la lañ ciy wax Mm. am nañu extrait bi mun nañ ko déglu tuuti comme ça ñu ñoo commenter voilà ñu koy jàpp Chris Brown c'est vrai qu'il en fait des tas ce gars en fait man dama am impression que moom dafa am rab mm. parce que Chris Brown li muy def yëpp nit ku normal du ko def waa police ñi ngi ñëw di ko jàpp si mu tëju biir këram yor téléphone am na boppam di filmer boppam Instagram di ah. poster ah. di wane que policiers yi ñi ngi ñëw di ko jàpp si ah. avant muy dem pour ñu jàpp ko donc pourquoi il fait ça personne ne comprend wooy bi nag bu doon yow nan ngay def loolu la tudd tout le monde a pensé que le fait ñu jàpp ko moo tax mu génnee wooy bi mais c'est pas ça c'est une chanson boo xamante ne mi ngi koy préparé pour album am bii di lu ñu wax ci exu Chris Brown. ah oui ah oui son ex oui j'allais oublier. man ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci Chris Brown son ex Rihanna. Rihanna donc mook Drake xam nga euh, ça fait longtemps que ñu leen di jiiñ yéenay génn génnoo leen bu tayee ñu nangu bu subaa ñu ne déet nëbbatu fii laaxatu. Ah. ci MTV Video Music Awards yi dañ ko confirmé devant tout le monde. Mm. Drake essayé di ko fóon sur scène moo esquivé ko donc c'était un coup de vent boo xamante ne daf ko daf ko jot en direct. Ah. là sur scène la ko fekk essayé waat na ko fóon ñu xool ndax dina dina dina ci dina ci arrivé ou pas. sama yoon nekkul ci kooku ne mu ak yow mooy na wala mooyul à vous de juger xool leen ndax arrivé na ci upa pas. de façon kon leeragul ko ñoom ñaar. leer na parce que ci ci MTV Music Awards bi Drake daf ko defal discours bu gudd boo xamante ni euh, seen rencontre lay lay lay wax début Rihanna début bi personne n'imaginait que boobu la ko xamoon. Ah. ba instant bi te wax na ko en direct que daf ko bëgg phone bi rek a jàllul woon. bon jàllul fi bonne bu fekkee ñoom ñaar dëgg la Beyoncé. Beyoncé 4 septembre daf doon fête anniversaire am Pape Cheikh 35 ans la doon fête Queen Bee Queen Bee c'est the Queen. Queen Bee Wilkie ah, yow waxal naa ci Beyoncé dafa mel ni fansal. Mm-hmm. ok Queen Bee Queen Bee d'accord Queen Bee le 4 la doon fête 35 ans. Limonade dernier album bi mu génnee. Hold mooy clip bi nga xamante ne moo ko permettre mu gagner meilleur euh, clip hmm. vidéo féminin ci ah MTV Video Music Awards yi hmm. ñu découvrir ko en exclusivité comme ni nga ko bëggee woon sànq yaa xam ci woon ko bu koy avancé ñu xool ko ñëwaat hmm. eh, ñun tamit ci application ci Snapchat bu officiel bu GFM chaque jour ak kuy passé journée bi ak yéen bi je passerai la journée avec vous sur Snapchat officiel bu GFM officiel waaw oui ajouté ajouté nous add leen ñu après ngeen follow ma mère ci Twitter follow leen ma mère follow mais Bijou passera la journée avec vous mm. euh, on le fera de temps en temps chaque jour ak euh, euh, kenn ku ngeen bëgg ci télé bi dafay yendu ak yéen euh, ci snap bu GFM officiel alors je pense que dese nañu Lil Wayne avant Mamadou Mouhamed Ndiaye pour finir Pape Cheikh moom nee na dafay arrêter carrière après vingt ans de carrière xaw ma ndax mun naa ko waxee noonu. Euh, te ci Twitter la ko annoncé message bu mu envoyé c'est assez touchant parce que mm. il dit que je suis maintenant sans défense et mentalement vaincu. Mm. Euh, c'est gracieusement et pleine de reconnaissance que je pars j'aime mes fans c'est terminé je cherche pas votre pitié mais de la sérénité donc nee na dafay dem parce que mm, euh, amatul défense daal et que mentalement. Euh, amatul force xeex il est vaincu mais am na kii reconnaissance xawma nu ma koy waxee ci fan sami gërëm na leen voilà donc buy mi ngi dem mais gërëm na leen bëgg na leen torop bëggul ñu yërëm ko mais dafa bëgg a am sérénité loolu moo tax c'est normal euh, en tout cas en 2013 il a révélé que daf doon souffrir de crise d'épilepsie mhm. donc euh, le temps amoon na ay médicaments yu doon naan sax ba affaire yi xawoon ko sonnal et dañuy wax day drogué wu lu ci nekk dañ ko koy jiñ mais man lu ma jaaxal États-Unis Pape Cheikh mooy que da ngay gis benn nit mu jékki-jékki ne j'arrête explication fan aussi rey seen bopp jooy fii ku ci nekk commentaire. Ah. et un an après le gars revient avec un album est-ce que ce sera le cas avec lui on ne sait pas mais assure parce que lui il est vraiment malade. voilà bon de toute façon merci xam nañu yu bëri yu ñu xamul woon ci. Euh,